mbokku Europe ak états lu bees tax judd na ci réewum Sénégal ñeel wàllu tabax loolu lu mu xanaa entreprise TRTP Touba réalisation travaux publique lépp lu ngeen bëgg a lu moo xam dëkkuwaay villa grand ak moyen standing wala immeuble wala bérébu liggéeyukaay wala juma wala jàkke wala ngeen bëgg a def transformation intérieure ci seen biir kër wala ngeen bëgg a changer seen xar kanamu kër dama ne mbokk yi TRTP Touba réalisation travaux publics moo ci gaaw moo ci mën te moo ci gën a xarañ ndaxte ay liggéeykatam ay jàmbaar la yéen ñi nekk bitim réew wala sax yéen ñi nekk ci biir réew mi njaaxare jeex na am ngeen nag ku leen di tabaxal ci ay plan yi ngeen bëgg jokkoo leen ci ni mu gën a gaawee ak TRTP Touba réalisation travaux publics seen aajo faju te du ngeen sonn te kenn du lubal seen xaalis TRTP su ngeen xoolee seeni makket yii xool it seen plan architectural yu yànji yii ngeen xam ne ey tabax yu mucc ayib yu ànd ak kaarange la ñuy defar TRTP Touba réalisation travaux publics noo ngi Dakar cité port kennook juma Masalikul Jinaan lépp lu ngeen bëgg a xam ci TRTP mën ngeen ñu dugg suñu site web www.toubartp.com wala ngeen dem ci Facebook Instagram wala YouTube bu leen neexee it ngeen woote ci téléphone bi di WhatsApp bi itam 77 812 46 13 77 812 46 13 ak TRTP Touba réalisation travaux publics tabax leen seen ëllëg. tax na heure boo xam ne war nañoo jóg mu jëm ci askan ginnaaw bu fukk tedd ki njëkkee maay ka ciy topp ndax bi ñu ko defee ci mbas mi gouverneur maay ka fa ko joxe juróom million bi ñu ko defee si mbirum ceeb bi maa ka si topp joxe fanweeri tonne bi ñu ko defee si mbënn mi maay ka si topp joxe fukki machine tey jii maa fi indiwaat lii loolu nag yow laa koy sant ndax nit ki bu santul nit du sant yàlla te li nga ma defal xam naa ko fi ma teg xam naa ko te li ko war lépp mooy bëgg gi ma bëgg Touba ak taalibe gi ma nekk man sëriñ bi ak taalibe bi dong laay tey jii may wax a yow am na ay wax yu bari yoo xam ne déggoon na mu jëm ci gan gi fi ñëw loolu tamit bëgg naa ñu leeral ko ndax tey jii bu ngeen ne woon bàyyi li ma nekk ma bàyyi bu ngeen ne woon demal nga teeru ko dinaa ko lal ay tàkk ruus jële ko Dakar ba fii ndax sëñ Touba man na may may na ma loolu te si te fas yéene koo teer fas yéene koo teeral nañ ko bëgg te ganuk sëriñ tubaa dañ ko war a jàppale danga ko war a teeru ndax li mu defal fii sëriñ Touba la ko defal kon tamit loolu wax naa ko pour ñëpp xam ni lii fii ñëw muy ki fi war a la république li mu def fii sëriñ Touba tax mu def ko nit nag bu fekkee def na loo xamante ni maam sëriñ Touba tax mu def ko yow mi si bokk bokk si taalibe da ko war a sant jàppale ko kon loolu moo waral rek kàddu yi nga xam ne ñu ngi doon dégg yëpp may ñëw pour dalal sa xel xam dara du fi am dara du fi xew dañuy fi ñëw delluwaat si jàmm ngay ñaanal ko ñaanal ñu nuyu kilifa yu tedd yi fi teew yëpp di ko tàmbalee ci sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Khoudous mi nga xam ne mi ngi fii suñu wet te at mu jot muy ñëw di ànd ak ñu liggéey bi te di ko defee yéene ak pëstef bu xóot xam ne lépp lu ñuy defal Serigne Touba njabootu ak Cheikh Ibrahima Fall kenn wut leen caa jiitu di ko sant bu baax di gërëm di ñaan ñu yàgg ko ànd te day cee ngërëmu Sëriñ Tuubaa di nuyu sëñ Cheikh Bara Abdou Lahad moom mi nga xam ne moom itam na mu ko daan defee ca nekku ak Cheikh Sidi Moussa noonu loo koy defee ba léegi ne fan yëpp saa su xëyee li muy xat-xat ak yitte li muy bari bari day bàyyi lépp lépp. ñëw ànd ak ñu liggéey ak mboolem mbokk yi fi teew yëpp bu ma limee damay juum di dellu am nuyoo uh, suñu doom Cheikh Abdou Mbacké ibnu Sëriñ Baara Doli nga xam ne moom sax daa wax taalib bi waaye doom la ci ñun ndax maamu Sëriñ Abdou Dia xam ngeen ni mu sëriñ ci ñaari wet yëpp ak ni mu demee ak soxna sëriñ bi wol butu woon di ko wax ne ko sama doom nga moom kon foofu nga bokk ci biir yoon wi maamam itam li li doon doon ci sëriñ bi ni ñëpp def la def mooy jaayante ak bokkam jënde ko ak taalibe liggéeyee sëriñ Tuubaa ci gànnaar ba sëriñ bi wàcce ko tofal ko mbooloo comme ni ñuy defal kilifa yëpp kon boo dellusiwaatee fii yàlla def nga yëngutu ci wàllu àdduna lépp lu fi xew lu ne nga wane sa yitte wane sa taxawaay wane sa parce que dañ la ci sant di la ci soñ bu baax te dunoon tam lu ñu bett ñun ndax euh, seen waajuru Serigne Baara seen waajuru Serigne Baara yàlla def na muy sama wu yàgg wu yàgg lool am ci man ak cofee la ko jàpp boo xamee dara disu ci bi yàlla defee ñu fal leen député ak sama sëriñ Cheikh dafa dem ci sëriñ bi jóge yaakaar naa suñu ci moo fi nekkoon booba bi mu dikkee mu ànd ak yéen fii ci jataay bi ñu toog tey fii la ma ko waxee woon daal ma leen dénk xamal ma ne ma daal na nga xam ne say doom dañ say taalibe lépp loo dégg ci ñoom lu ñuy war a def bu ma ci xaar nañ leen woo ba ñëw ba wax leen ko te xam naa lépp loo leen wax danañ ko def kon loola awma ci sikk sàkk ndax nit moom noo ko jàppale xam na ko te li ngay def ci suñ jëm itam danga koy def ngir jëm Sëriñ Tuubaa loolu moom xam naa ko ci yow soxla woo maa dégg soxla woo maa gis da ngir jëm Sëriñ bi rek waaye nag moom moom koy defal nag am nag am nag am na bay kon lii nga wax léegi itam daanaka jëru dellusiwaat sax waaye loolu moom séntuwuma ko ci ndax sëñoo ko sax ndax fi nga fi nga bokk sama am sëñ Bija ab sëtam sëñte ne ci biir Tuubaa Sëñ Muntaxaa di santaan dara mu cay mu ci mu naan dara ko def loolu moom mm-hmm. ku xamutu koy xalaat waaye yéen sañu leen ko te bu ngeen ko naroon def sax kon moo woo leen bi nga ñëw tëral leen ko waaye li tax waxuma leen ci dara mooy xam naa ne du ko def loolu moom daanaka jëru jëru sax dellusiwaat jëf ji nga fi indi te defoon ko daaw muy jëf ju rey te li fi xew lépp it noonu nga koy defee loolee itam gis nañ ko waaye nag ki tax nga di ko jëf mooy Sëñ Tuubaa kon yàlla na da ci fay ndax sëñ moom lu ko jëfal rek am na am na fay. li nga fi indiwaat ren ji itam ngir dëggale ko waxee sëñ bi ngir ndax ñu ni ma koy waxee rek lépp rek yaakaar yàlla lañ ci yaakaar looloo ci nga xam mooy wàllu saahir si nga xam ne nag suñu borom moo loola lañ ci war ci wattandiku ak fexe ba ku fi ñëw ku ne la la war ci aaru ak sàmm nga def ko kon lii ci liggéey boobu la tàbbi moo taxee sëñ Abdou Lahad Bousso mi jiite daayira Muqaddamatul Xidma moom laa wóolu teg ko ci loxoom bu ko defee ñoom itam ñu jël ko téye ko ngir fes fes fexe loolu dana doon ndimbal lu mag ci seen liggéey bi ci ñoom ndax ñu ngi ko doon ñu leen ko waroon a jox kon yàlla def na li fi jotoon a daje sax jotuwuñ leen ko jox kon jëf ji moo ci ñi tàbbi ci ñoom ñu jox leen ko ngir balaa kenn dugg ci biir rek ñu ñu ñu la koo jox. ndax loolu itam bokk na ci li sàmm ndax ñëpp tolloo ngëm-ngëm ñëpp tolloo giseen kon nag laa darara wala dirara kon ku ko gëmul sax war koo def ngir wattandiko sa mbokkum julli mi nga xam ne nekkut foofa mooy dama ma ci waxoon bu yàggut kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñu jox sëñ Mbass Abdou Khoudoss mu sànni sëriñ bi xanaa ñu jëfandikoo ndigal rek waaye li nga wax matale na lépp xanaa seereel mbooloo yépp sunu cant ak sunu ngërëm ci sa jëmm ji ci liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy liggéeyal sa maam sëriñ Touba di ko liggéey ci ginnaaw sëriñ Mountakha mi nga xam ne tey moo di sëriñ tuuba te ñuy ñaan yàlla sunu boroom mu may ko wér ak kàttan gën koo yàggal te nga yàgg ci ginnaawam di ko liggéeyal te fu ñu gestoo rek gis nu ànd koog yéen loolu mooy li nga xam ne moo waral suñu jataay bi te tudd nga ko léegi loolu rek doyoon na sëkk waaye ñu gën a feddali suñu jàpp googu nga xam ne cheikh Mouhamadul Amin Baara ibn cheikh Mouhamadul Fadil moo nu ko boole woon ci liggéey bi cheikh Seydul Muxtaar gën koo feddali muy dox ba agsi tey ci sëriñ Muntaxa bi loolu lépp nag matale gi nga ko xam ne yaa ngi koy matale ak taxawaay bi nga xam ne yaa ngi ko ciy taxaw ba kenn ku nekk ci ñoom nga laq ngërëmam jàpp naa ne ngërëm loolu lépp ngërëmul sëriñ Touba nag moo ko ëmb te loolu moom lu ñu gëm la te am na ci loo xam ne duñu ko wax ci rajo yi wala ci télévision yi wala ñu ko wax ci kanam nit ñi waaye dund nañ ko ak yow xam nañ ne loolu mooy li nekk ci yow yàlla bi nga xam ne nag moom du nax kenn te kenn du ko nax jàpp naa ne li nga xam ne moom ngay liggéeyal sëriñ bi waxtu wu nekk rek meññet mi ku mu neex ak ku mu ci teg sa bët loolu yàlla mi nga xam ne moo la ko baaxee dañuy naan sëriñ Touba mi tax nga di ko taxawee rek nga gën ko mën a taxawee màggal gi nga xam ne moom lañuy waajal yàlla teg ko ci sa loxo yàlla gën koo yàggal waxtu wu nekk nga di ko taxawee ni nga ko bëggee ci ki nga xam ne moom ngay liggéeyal it mu bëggee ko noona dégg nañu li sëriñ bi wax sa digganteeg moom muy feddali la ko jiitu woon cee ña ko jiitu woon loolu kon ñun fan ci féete woon rek faw lañ ciy féete waxtu wu nekk di ko di ko ànd ak yow di wun ngërëmul sëriñ bi ndax borom Daaru Muxti dafa xool ne liggéeyal sëriñ Tuubaa jombul ci kenn te kenn du ko weesu jombul ci kenn te kenn du ko weesu waxtu wu nekk nag ci loolu la ñuy teg suñu tànk xamaloon nu itam mm, nenu nu képp ku fi nekkal sëriñ Touba def leen ko muy seenum sëriñ Touba moom la borom Darou Mouhty jàngaloon ak njabootam loola la ñuy loola la ñuy yow mi nga xam ne nag yaay léppam te mu wax ko baat boo xam ne wax yéen wu sori la woo xam ne Cheikh Sidil Muxtaar waxoon na ko loola doy na ab junji xanaa ñaanal la yàlla sunu boroom mu musal la ci lépp luy gàllankoor ak lépp loo xam ne luy ndog la ba ni nga ko bëggee nga nga amee ko noonu te su su te lu ci ne nag nu ànd kook yow waxtu wu nekk boo gestoo gis moom ndax ngërëmul sëriñ Tuubaa rek la ñuy wut te xam nañ ne yaa ngi koy wut di ko wut ci ginnaaw sëriñ Muntaxa mi nga xam ne moom itam am na ngërëmul ay kilifaam ba ak tey yilif ñëpp kon loolee nga xam ne moom moom la am ci ay kilifaam